muy euh, magistrat boobu au magistrat bi nga xam ne moo jiite woon liggéey yi ñu doon def euh, ci jamono jooju ci wàllu politique ba tax ñu am code électoral boo xam ne ñëpp déggoo woon nañ ci adopté ko le 20 novembre 1992 euh, ci jamonoy président Abdou Diouf tey nag ngir waxtaanee loolu yëpp dañuy dalal koo xam ni fekkee na mbir ma dund ko muy Ibrahima seen kenn dootu ko présenté bokk ci PIT nekk ci mouvance présidentielle bi ñu ngi lay nuyu monsieur seen di la dalal ci démb ak tey fois am mbégte lool jàkkaarloog yow ci waxtaan wi. man kay ma am mbégte tase tasewaat ak yow ci jàmm ci jàmm ak salaam te yàlla nu yàlla may ñu dajewaat ci anam bu gën a euh, bu gën a yomb ndax Covid bi moom sonal na ñëpp. sanal na ñëpp yaakaar naa ne jamonoy Covid bi ba tey sax ñu ngi doog a gisee waxtaan bi ñu fi jotoon a def euh, téléphone la woon ndax euh, doon wàññi contact yi euh, yàlla na fi jugee ba activité yëpp am ni mu daan amee incha allah alors ni ma ko waxee code consensuel wala code Kéba mbay bu ñu adopté woon 20 novembre 1992 ñu ko doon fàttaliku il y a deux ou trois jours moom la ñuy waxtaanee tey lan moo indi woon waxtaan am ba ñu yegg si ci code consensuel boobu wala code Kéba Mbaye waaw jërëjëf lii ma laajtee moom euh, vraiment dama ci bég mën naa cee wax bu baax ndax sunu parti PIT bokk na ci ñi taxawoon di xeex code électoral bi fi amoon bi indee jëya élection 88 1988 code électoral boobu nan la de woon dañ daan. pour voter kenn du identifier kii vote amul mbañ quartier mbañ quartier bu la neexee nga dugg ci bool ndax xale doo ci dugg waaye ah amul euh, encre euh, indélébile bi ne am na depuis 83 euh, boo ko kii moo boo génnee moo moo moo moo effacé wu te ni ñu saytoo élection bi mu nekk entre les mains euh, de l'administration taxoon ba euh, élection yi mu jafe leer euh, loolu ñu doon ko revendiquer avant élection 88 yi jot Diouf tëju bugg ci dégg dara ñu dem ci élection yi ci guddi gi bi résultat yi génn a vingt deux heures madame Soxna Dieng moo nekkoon télévision joxe résultat ni Abdou jif gagné na dès le premier tour ah waaw PS aussi gagné na euh, ndax élection présidentielle ak législative couplé la woon Eh, ci guddi gi eh, la Jean Collin jël matukaayam dem arrêté Dansokho ak eh, Ablaye Wade ak Ousmane Ngom ak le lion du Kayor la Boubacar Sall. Jean Collin moo nekkoon ministre de l' intérieur moo nekkoon ministre de l' non le ministre d'État secrétaire général de la présidence. ah waaye. mu am makka ma dem arrêté ñooñu. waaw ah, teg ko fan. may si doole bu dee bu ministre intérieur demal bon euh, bi ko ñu ni déggee le lendemain ñëpp génn ci mbedd mi di manifester euh, euh, loolu moo tax ku ni. alliance soppi bi nga xam ni Abdoulaye Wade euh, ak euh, ñun PIT ak LD ñun ñett ñooñu alliance bi ñu def ko wax na ñoo woote nit ñi pour ñu gën ci benn buxul dëgg nit ñi ñoo xam ni élection yi jaaduwul yoon leader yi ñu jàpp kenn woo leen a jàpp ñu gën ci benn c'était spontané c'était spontané mais mais nag bi mu spontané ñu gis ko ñu taxaw organiser. waaw ngeen profité aussi yéen tam. non organiser mouvement bi parce que lu ko mooy mënoon euh, ëpp loxo. voilà ñu organiser ko. waaw léegi ñu def parenthèse Abdou Diouf situation code boobu moom daf ko fekk wala moo ko créé. Euh, euh, code électoral bi. waaw code électoral bi évidemment moom depuis Senghor moo nekkoon premier moo nekkoon premier ministre. Mm. moo moo nanguwul woon ak Senghor ñu leeral code bi. dégg nga euh, bi mu ñëwee 81 aussi ñu wax wax bës bës bës mu bañ. kon kon boobu yàgg na fi ci sab jamonoy Senghor la woon. d'accord bu ñëwee rek gañe jàll dem yoonam. dañuy def ci kàmb gi ba mu fees del ñëw. dañu naan bourrage des urnes. Ah, voilà bo loolu euh, donc mu indi fitna yu rëy ci réew mi ñoom ñu décréter état d'urgence yaakaar ni loolu dana tax nit ñi taxaw. nit ñi taxawul yi fi gën a metti ba Abdou Diouf woote ni tey jaro pour ñu trouver solution ñu ne ko ñu ne Ablaye Wade yow yow la concerné ndax yooyu candidat xam nga yow yaa ak Abdou Diouf yéen a mën a discuter ba xam foo leen jot problème foo leen d'accord ñu jàpp ci ndax yow lan yow yaa sunu candidat ñun yaakaar na yaa gagné. moom mu ne moo gagné kon bokk yéen yéen a mën a discuter donc jokkoo kitis mu tasek euh, Abdou Diouf à deux reprises euh, ba mu wax ni waaw léegi discussion moom on va tout à grand T. Hmm. waaw moom Abdou Diouf mu génnee audience ba mu ne on va discuter tout à grand T. Hmm. ne ko même bu dee tey ministre su du yoon <laughs> loolu d'accord rek d'accord d'accord. parce que yow la concerne. Mm. bon euh, ñu dem ci dem ci dem ci ba mu ju jubóowuñu. Mm, ci waxtaan yi. jubóowuñu ci waxtaan yi. Euh, donc bu boom bu euh, boom ji dellu ca boy boy ba. Mm. donc ñuy organiser des manifester diriger moom itam mooy ne mënuñoo xam dara ci discussion yi lan moo taxoon sottiwul. lu taxoon sottiwul. Euh, man par la suite la comprendre. Okay. mais temps boobu. Euh, jéemuñu sax la sax Abdoulaye Wade. Ah ci la non. dañu ko ne yow la concerné demal discuter boo d' accord ñu jàpp ci boo d' accord ñu ñu continuer. Hmm. voilà. d' accord ci yemoon. kooku moom euh, nan la mënoon dépasser contentieux électoral bi. Hmm. mais mais contentieux électoral bi bu ci d' accordé waxtaan gën a mën a ubbiku ñu saytu maintenant système électoral bi dégg de ndax système électoral bi moo indi lii donc Diouf d'accord na ci loolu mais ci lan la d'accord certainement ci place bi Abdoulaye Wade waroon occupé ci ci gouvernement bi peut-être loolu moo tax borok euh, yi fi dem 88 jeex am euh, ba ba ba booru juin 88 Abdoulaye Wade tukki dem France euh, toog fa ñun ñu nekk fi ñun di di di nekk mbedd mi rek ah, di mobiliser moom mu France euh, ba euh, ba ba ba ba début janvier 89. mu ñëw ñu teeru ko teeru teeru bu rëy. Hmm? waaw euh, pont par doigt bi ba ci Colobane fees de léegi. comme ñibbiseem bi mu fi defoon rek. non po kooku moom <laughs> bii moom moo gënoon. ah oui parce que quand même euh, ñin ñi euh, dañoo mere woon juuf ni mu doxale dégg te réception boobu. xam naa ni tax Diouf xaw a jaxasoo euh, fekk na ci biir PS euh, Madia Diop nga xam ni mooy moo doon patron syndicat CNTS mm-hmm. bi ploré te ñoom amoon nañu baat mm-hmm. ci CNTS ci biir PS Madia Diop moom moo njëkk a xam ni dañoo def gouvernement d'union national pour dépasser affaire bi parce que lii du jur jàmm hmm, gën a banku. tànqam lu rek tànqam lu. yàlla woo yàlla woo yëfi naar yi ñëw Mauritanie. Hmm. Nouakchott waaw événement yi événement bi eh, fii dakaar ñu commencé di rey naar yi eh, muy problème bu rëy ñun payité bi ñu gisee loolu. surtout bi Abdoulaye Wade waxee ni moom bu doon président day envoyé armée ñu bombardé Silibadi Sili parce que euh, naar yi dañu yóbbu lii moom day envoyé armée ñu wàcc se Seli Seliba bi ñu ne ah lay Wade moom. alhamdulilah du président. du du président. fii tànn kon boog ñu ne attention nan jóg wax ni contentieux bi nu nekk électoral nanu ko lal teg fële waxtaan ak gouvernement bi seet muy régler problème Mauritanie ñun PIT bi na ko waxee lu nekk la ñu dégg boo Ablaye wax daal surtout Ousmane Wom hmm? Modou Diagne Fada. Landing Bathily. waaw ñu ne da ngeen bëgg a transhumé. waaw ñoo ñoo sonn dañoo trahir bëgg a transhumé. Ah ñu ne ñun daal ku ne xam na ne ñun soxla na gouvernement mais réew mi daal mooy sunu muy sunu mbir yàlla woo yàlla woo sëñ Abdoul Aziz da baax jóg wax kaddu bi nu wax mu ni na ñu ñuy bàyyi politique teg ko fële te taxaw ànd. ñu réglé jàmm diggante Sénégal ak Mauritanie xam loolu mu gën. may poids Touba wax la même chose waaw. kon nag ñun doon nga xam ni ñun. Mm-hmm. lii nu génne foofu la mm-hmm. foofu la bon loolu moo indi euh, euh, Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade euh, discuter waat mm. parce que ñun bi ñu waxee loolu Jean Collin defe ni moo. puis seen yéen nga euh, pour ñu discuter kon boog ñëw leen ñu discuter ak yéen pour setu nit faj ñu ne ko ñun duñu faj dara kii Sénégal yi fa ba am lay wàdd moo mën a faj ñun bunt la ñu génne rek waaye bu dee ñun duñu discuter ak yéen amuñu euh, amuñu discussion à part euh, loolu bi ñu koy wax daw fekk ñu rencontré PS délégation ak pour expliquer leen lu tax ñu wax Jean-Claude jóge kon bokk kaay leen ñu discuter seet ñu ne déedéet ki ngeen ko seqal mooy Abdoulaye Wade kon bokk moom ngeen war a discuter ñu seet nan la ñuy tege yëpp yi ci suuf fat euh, diggante Sénégal ak Mauritanie ba jàmm ñëw ah, gis nga kilifa diine yi wax loolu moo tax yëf yi dal ñu bàyyi Mauritanie ni bu ndoxataan yooyu yëpp Mauritanie aussi pression yi am ci international moo tax moom tam ñu yëkkati seen tànk donc ci diggante boobu la Wade ak juuf commencé discuter waat waaw juboo bi yoon bi ñu juboo euh, ñun àndatuloo ko de. Mm. ndax buñ ne nan dem discuter. dañ leen a ngaañ ah, a ci ci hmm. coalition ba. coalition waaw ci danoo danoo trahir ay traître la waaye ba mu demee discuter ba jubóo ko juuf euh, Diouf ne euh, euh, mu am ñu mu yónni ci daa soxoon bu payité bokkul ci àndandoo bi àndandoo bi du mën a baax ndax ñu nag PS rek PDS dara ak li xaw suñu diggante boo leen ci bokkul café bi du mën a baax. Ah, bu ngeen ñëwee yëf yi xaw a équilibré. ñu ne ko ñu ne ñu ne écoutez ñun bu ñuy wax pour bokk ci gouvernement taxul ñuy wax mais Diouf insisté insister pour que ñu bokk ah, bi bi ñu toog réunion bureau politique wax ko parce que Diouf dafa def bëgg daa soxo ñëw daa soxo ni moom. mën a d' accord parti bi envoyé kenn mais moom du dem mais bureau politique mu insiste ne ko yooyu dem daa su ko nii non moom vraiment yëfi gouvernement ak euh, ni muy defee mënul ànd ngay ne ko mu mënti doon yëpp yaay dem donc loolu moo tax euh, gouvernement de de 91 bi avril 91 PDS PIT. ak PS ñoo ko seq PDS ñi màndaloon eh, di nu ŋàññ ak ak ànd jëf PDS boolewu leen ci de ah dafa dem discuter affaire am waaw hmm? moo tax LD ak ànd eh, jëf génn ci métropole ñi trahir nañu askan wi gis ngeen li doon wax yëpp dara nekkul ci ñoom gis nga li Idrissa Seck di dégg. moom kay moom li nga may wax nii daf mel ni mooy li xew tey rek foofu laa dund dama lay bàyyi nga daaneel ci démb <laughs> ñu doog a ñëw ci tey ndax l'histoire se répète vraiment. donc lu nekk lan nu yàq hmm. mais ñun bu ñuy dugg ñu ne Abdou Diouf bu ñuy dugg bu ñuy ñëw ay ci condition lay doon d' abord ministère bi ne euh, ministère pour liggéey lay doon hmm. deuxièmement sunu indépendance sunu xalaat dana koy garder lu nu d'accordul dana koy wax lu nu d'accord jàpp ci troisièmement il faut programme d'ajustement structurel bi ñu nekk ñu teg ko ndax mënuñu bokk ci gouvernement boo xam ni li li nuy doxal ci économie dafay gën a suuxal réew mi te ñun loolu moo taxoon ñu xeex ànd ak euh, def programme ànd ak Ablaye wàdd pour loolu am Diouf ni d'accord ñu ne ko euh, boo nan ngay tegee euh, programme de semence bi ci suuf mooy lan mooy euh, monde rural subvention ñu ngi ko daan jox da nga koy delloo deuxièmement da ngay instaurer dialogue entre pouvoir ak syndicat yi dialogue entre pouvoir ak mouvement étudiant dialogue entre pouvoir et les organisations du monde rural ñu di loolu boobu cadre boo ci d'accord ñu ñëw ñu ñu may ko diir ñu may ko diir mu tontu ñu d'accord na dégg naa du façon nett yéen yi motu ko <laughs> parce que ci biir PS amoon na ñu bëggoon na seen bopp ni loolu du fi am ah waaw mais motul ñuy tudd si <laughs> motul ñu lay tudd kooko dégg bon am na ñu fi ci ci bokkoon gaañ nekku na gaañu nañu yal na euh, yàlla xaaral leen àjjana ñun ñoo xam tamit ñu ngi fi di dund ba léegi. Hmm. bu ñu déggee affaire bi dañ xam. waaw donc ñu dugg bi ñu duggee Diouf vraiment respecté engagement li mu waxoon def na ko. mooy euh, dafa arrêté programme d' structurel teg kuréel négociation bi banque mondiale FMI def lu nekk pour mu dellu ginnaaw mu bañ ba économiste principal banque mondiale bu na tudd bu tudd Eretberg mu ko Sénégal ajustement ajourné pour dire que ñoom ñu nu mere woon ñu dagg subvention yi yëpp Abdou Diouf ni man daal lii yaakaar na ne mooy indi jàmm Sénégal ci lay nekk lu mu metti métti ñu ci taxaw Euh, te pour euh, euh, wane ni li mu d'accord ñun mu ngi koy doxal ak da ak Ablaye Wade mu d'accord ci ñu seetaat code électoral bi ñu def commission cellulaire nekk ko magistrat Keba Mbaye jiite ko moo doon président conseil constitutionnel mu jiite ko mu piloté discussion yi foofu la ñu di dis discuter ba euh, tëral euh, euh, loo xam ni am na surtout benn poñ bu PS d'accord lu woon poñ boobu d'ailleurs après l'histoire a montré que PS waxoon na dëkk ñun luñ ci xiiran doon wax rek plus consensus la hmm. ñëpp bu ne boo ci génn da nga sàmm sa kàddu poñ boobu moo doon lan mooy ci commission nationale de recensement des votes euh, euh, dañoo wax ni commission commission boobu ni muy décider par consensus PS ni loolu dana jafe parce que ku euh, ku nu gagné te nanguwoo ko da ngay bloquer résultat yi. boo Kébé mbay ni kon boog yow sa remarque boobu danga koy def ci dicomé bi ñu adopté ko ak sa réserve bi mu yóbbu document bi jox Abdou Diouf Abdou dina réserve bi ni da assemblée adopté leen consensus bi sans réserve bu leen ci génn benn virgule noonu la code consensuel bi amee code bi moo indi ONEL organisation nationale de d' observation euh, des élections moo indi euh, euh, identification moo indi bon révision du euh, du fichier électoral consensuel moo indi obligation comment de l'isoloir passage obligatoire de moo indi. vraiment un système de distribution euh, des, des cartes d'électeurs euh, avec une participation effective euh, des partis de l'opposition et euh, bureau de vote. Euh, le représentants des partis ne sont plus des observateurs mais des membres des bureaux de vote donc yooyu jéego le code bi indi indee tegee code bi Abdou Diouf ni waa PS mais plus ci consensus la nekk mais weddinte dootul xam kooku daal vraiment euh, li ngeen di substitut Abdoulaye Wade yëpp mën na ko teg fële te liggéey consensus ñu liggéey euh, bay dugg 92 euh, jëm waaw bay bay dugg Euh, bay jeexal 92. bëgg a dem 93 euh, bëgg a dem 94. 94 fii la élection présidentielle di nekk en mars. Hmm. Euh, Abdoulaye Wade discuter ak Diouf pour ñu réformer constitution pour instituer un vice-président boo xam ni mooy mën na wuutu président. Ah waaw. bi bi bi ñu Diouf informé ñu ne ko duñ ci d'accord. d'évolution incon d'évolution euh, constitutionnelle du pouvoir c'est inacceptable le pouvoir doit être obtenu par le suffrage kooku mënuñ ci d'accord bu fekkee loolu la ñun ñu génne ci mbir yi léegi wax euh, réew mi ni euh, acquis démocratique yi ñu am xam ni président doon koy fal ñu ngi bëgg a manipuler constitution pour ñu koy donante boobu ab Ablaye Wade lan moo nekkoon euh, jubluwaayam. ah jubluwaayam pour ko Diouf abal ko léegi <laughs> bu demee rek sax bu Diouf gagné bàyyi quelque temps bàyyi ko léegi loolu moo nekkoon ci ñu ni loolu du fi am bi Diouf ne d'accord ci mujj ni ko d'accord ma ci réforme boobu Ablaye Wade génn ni maa ngi samp sama ndënd. damay. boobu mi ngi woon ci gouvernement bi. Oh. nekk ministre d' état. ministre d' état noonu ko day génn samp ndëndëm dem élection ñu ngi toog. waaw gannaaw àndu leen woon dugg kay. non ñoo àndu dugg. ñoo bokk mais mais euh, dafa dugg voilà ah, bokk leen bunt bi ngeen jaar. voilà donc euh, loolu sax taxul. mais li tax moom li mu bëgg waaw li ko tax a génn leneen la. waaw ko tax a génn euh, recul démocratique la bu bon ci sunu ci sunu mbir. ba donc euh, bi mu génnee élection 93 euh, ñëw processus électoral bi amul benn problème da yëngatu amul contestation amul ban dem ci recensement des votes. bi ñëwee ci commission nationale de recensement les personnes bañ am parce que élection yi bu pare rek Ablaye Wade ak Idriss Seck génne ay résultats ne moo gagné moo gagné au premier tour. ah oui waaw dégg nga de à l'époque waxoon naa leen koy xam ne résultat du am. ñu ne ko de toute façon xam nga pour demee du mën a bañ euh, consensus léegi di xumbal rek mais bu gisee ni askan wi àndul ak moom ndax yaakaar na ni bu nee moo gañe ki génn ci mbed mi askan wi topp ko kenn topp ko bu demee xanaa dana dana seetaat mbir yi ñu bloqué mais ñu ñëw ñu bloqué ni ñoom. résultat yi d'accord ci commission bi dugg fu ne fu ne aw fu ne génne preuve ne ñu bañ euh, onel génne preuve euh, euh, PS génne ay PVM ñu génne suñuy ñëpp ñoom ñu ne d'accord te PV yëpp Diouf la joxoon ndam. te yëpp ñu résultat commission mën a koo mën a koo joxe ba Sénégal bëgg a taga témbe foofu la Keba Mbaye jëlee couragem am bind euh, présidente commission de recensement ni ko maintenant nii ngay décider politique yi amatuñu du ñu bokk ci ñuy décider ñenn ñooy décider magistrat yi fi nekk bunu bu eh, eh, opposant d'accord nanu def seen observation ci PV yi dem conseil constitutionnel mais résultat yi magistrat yi rek ñoo koy génne bon évidemment euh, Wade n'était pas d'accord mm. mais ku ku seet aussi xam ni si arrangement la rek pour génn ci guta mm. mais se passe un arrêté du conseil constitutionnel mënul euh, jalgati mënul changé li code électoral bint te tu bo bon. que ñu génn ci impasse boobu mais buntu la wax il fallait s'en sortir mais bunt boobu nag moo mooy wéy ba léegi kenn kenn remettre ko en cause. parce que xam ne noonu rek lañu mën a génnee résultat. politique bu ñu ci bokkee kii day banku fee kii banku fee. d'accord rek na def sa sa observation te. conseil waaw. en parenthèse du boobu ci la ñu rey maître Babacar Sèye bon loolu nag metti waat euh, février euh, mai 93 euh, ñu dem élection législative sur la même base euh, commission électorale. de la même manière génne résultat bëgg a saisir conseil constitutionnel ci diggante bi lanu assassiné maître Babacar maître Babacar Sèye euh, heureusement conseil constitutionnel seen seen xel dal euh, paniqué wuñu ñu def seen liggéey puisque PDS ak yeneen parti kenn Euh, deful recours ñoom ñoo proclamer résultat définitif voilà donc code consensuel bi foofu la jógee nekkatul consensus parce que parce que la mu tëraloon doon ko mujj changé mais li mu changé nag ñëpp ci d'accord ba léegi jusqu'à présent bu élection amee bu mu recensé bu demee commission nationale commission nationale magistrat yi ñooy génne résultat bu da bokk kon bokk mu nekk jurisprudence voilà mais mais mais 93 euh, février 93 euh, ci dëgg dëgg dëgg dëgg euh, Wade lu taxoon mu mer c'était fondé ndax un arrêté du président conseil mënul jël le dessus sur le code des dispositions du code bi nga xam ne surtout da ngeen ko waxtaanee. Ah, am am consensus. donc ah. loolu la. donc di pees doon bañ li pees doon ragal ni lii nan set neneen mais consensus mënul am te Abdou Diouf ne ko non ñun tam ma jox pees yéen da ngeen euh, ñaaw xel rek mais. waaw ndax boobu da ngeen a juboo waaye sóoraale wu leen ne ëllëg wuute mën naa am. mais PS am dëgg ci ñoom dëgg bu wér ki am donc code boobu moom la ni eh, disposition ba léegi kenn jëlewu ci dara li ñuy discuter kay mooy fichier électoral euh, euh, établissement carte carte électorale ba carte électorale li ko indil li indi problème euh, Ablaye Wade moo ñëw ni day changé carte électorale yu ñu amoon def carte biométrique waaw biométrique boobu nag di indi problème ba dëgg di si <laughs> dëgg di loolu mu indi problème carte mais lu ko mooy problème boo doon problème carte yi lan la woon dañu waroon euh, dindi le stock mort. stock mort. xoolaat fichier bi ñu génn àdduna. pour dindi stock mort bi c'était clair dañuy wax ne voilà euh, dañuy euh, ouvrir de nouvelles inscriptions dégg nga ñi bindu ñi bindu ak ñi wote. xam nga ñi wote bokk na. Mm. mais ñi bindu ak ñi wote ñoom la ñuy boole mu nekk le fichier. loolu d'accord dégg de mais Abdoulaye Wade eh, jékki-jékki ne moom lii gën a wóor mooy ñu def biométrie biométrie bi nag moo indi problème ba léegi. loolu moo indi problème carte euh, ak euh, euh, am na beneen ak kii boo xam ni. code consensuel bi indi na ko mooy euh, les candidatures indépendantes élection présidentielle élection législative mais ñun ñun payité ak ànd euh, jëf dañu waxoon ni nan dem ba local bu nu ko yamalee foofu ndax euh, c'est pas normal que les partis politiques jël le monopole de la représentation nationale en démocratie ku ci nekk nga bokk ci parti wala nga bañ a nekk ci parti war nga am droit solliciter le suffrage du peuple dégg nga de loolu boobu taxaw lan taxawoon loolu nag ñu koy soog am ci euh, euh, comment dirais euh, ci référendum bi ci référendum bi ñu ngi soog am boobu dem ba local yi voilà donc loolu mooy code électoral consensuel li mu jur ba nag ni si. wala code Kéba moom la ñuy waxtaanee ci démb ak tey di ko mm. fàttaliku 20 euh, novembre 1992 la ñu ko adopté woon ñu ko doon euh, kon euh, fàttaliku ay fan ci ginnaaw yàggul ñaar wala ñetti fan alors yaa ngi wax ne carte biométrique yi moo indi tey jafe-jafe. carte voilà ci ci ci Sénégal bu weesoo loolu ban jafe-jafe nga gis ci processus électoral boo xam ne itam ñu ngi koy traîner te waroon ko saafara sincèrement. waa Sénat Sénat gëdd bi mu war am ci élection yi amu ko. commission électorale nationale autonome. waaw xam nga honnête lañu amoon. observatoire ñu xeexee dëgg dëgg dëgg ak Wade non bi ay Wade ñëwee quoi. jël gouvernement bi ñu taxaw nii kon bokk ñu changé eh, honnête ñun seeni lan bëggoon commission. nationale électorale indépendante Abdoulaye bañ def ko Sénat. lan mooy différence bi différence bi mooy euh, du semi du Sénat mooy proclamer résultat dégg bu doon seni seni mooy proclamer résultat non seulement mooy organiser ba pare proclamer résultat euh, seni mooy organiser élection mooy distribuer carte Euh, mooy euh, organiser élection sous le contrôle maintenant du ministère de l'intérieur ministère intérieur dafa war a set ak le pouvoir judiciaire war a set ndax li muy def mi ngi ci yoon jar na yoon mais loolu mooy taxawam ma nag moom day contrôler observer euh, rectifier bu fekkee c'est nécessaire demande demander ñu rectifier ci seen kon amul benn pouvoir daal. non non mais mm, am na pouvoir moral. parce que bu nee ministre intérieur rectifié fii euh, dana rectifier bu <laughs> rectifié mu indi blocage. bon kon boog moo taxoon ma ne kooku moom des na loolu moo tax assise nationale bi mu amee nan te gis seeni yi dëkk yi dëkk yi am seeni gis ni. tànn ko tànn mënu Sénégal compétence yi ñuy bañ. moo fay am moo fay am. des programme yoo xam ni kenn kenn ci ñu ni kon boog ñun nan bàyyi waxu seen bi mais sax beneen beneen form forme boobu mën na waxoon euh, une autorité de régulation de la démocratie ARD autorité boobu mooy gérer parti politique yi dégg nga de du ministre de l'intérieur mooy gérer parti politique yi mooy gérer processus électoral non mooy euh, mooy du gérer processus mooy contrôler politique ministre intérieur mooy organiser élection bi mais euh, mais contrôle mm-hmm. bi ci war euh, autorité boobu moo koy def autorité la nga xam ni dépendul ci ministère intérieur dépendul ci kanam autorité ci indépendante dégg nga euh, te moo géré parti politique euh, ministre intérieur mooy géré parti politique yi euh, eh, c'est un partisan mm-hmm. ok jugé parti bon loolu moo tax ñu ni ñu def loolu ah loolu bokk na ci eh, processus électoral yi li sooxe ba léegi bon eh, te moom la commission du dialogue politique yooyu sooxe moom la moom la lay seetaan jusqu'à présent problème fichier électoral. problème bu fichier bu fiable. bu leer waaw ba waaw problème la ba léegi lu tax mënul sotti euh, fichier bi. gis euh, man su koo xamoon dinaa ko wax di. est-ce que du ñàkk volonté tamit. mais non ban volonté gis nga li nu li nu li nu bëgg moo jafee def. Hmm, mooy lan. gis nga. Euh, biométrie ku wax ne mënoo ci tricher da ngay laaj américain yi hmm. américain yi seen élection du ko jaxase xam nañu biométrie <laughs> <laughs> donc gis nga euh, euh, boo boo buggee élection yu jóg motul wut carte électeur carte d'identité doy na carte d'identité am xam nga carte d'identité kenn kenn du ko distribuer pour nga dem voter ji mm-hmm. am nga sa carte d'identité ba pare te kenn du la mën jox ñaari carte d'identité am nga sa carte ba pare ba élection jotee eh, nga war nga bind war nga dem fi nga war a vote xam nga ko boo demee sa carte nga wote nga dem sa yoon loolu moo mën a mu ay carte ak ay yooyu yi problème lay doon ñii jot ñii duñu jot voilà mu ngo eh, bon loolu moo moo sooxe ba léegi te bu nëpp góor mu jeex kenn du wax carte carte d'identité ci lañuy ñuy yem ndax nga yor carte d'identité sa photo nekk ci ci affaire bi ak say référence yëpp boo ñëwee ñu xam yow la du yow. Mm-hmm. du dëgg xam nga loolu yomb na. Mm-hmm. waaye bi ñu ci dugalee bi ñu continuer di fa ay carte mm-hmm. topp dal ko sécurité bio biométrique foofu la coow di bari kenn wóorul sa morom foofu loo coow li bari te pour muy pouvoir muy opposition ñoom ñëpp dana dana dana carte yi da leen soxal. ku ci nekk kenn bëggul bàyyi gàtt yi te pourtant dafa cher. waaw xaalis bu la. xaalis bu bëri la ay milliards. loolu man vraiment mënoon mënoon nañu ko économiser mënoon nañu économiser eh, dooleel euh, euh, def autorité bi na wax dooleel ko jox ko kattan ndax moom mooy saytu euh, carte électorale moo koy moo koy. moo koy commandé moo koy distribué fi muy wotee moo koy rëdd taxawal ñaata biir di wot moo koy décidé dégg nga de te ñoom du autorité administrative du keneen ñoom ñoom ñooy convoqué partenaires yi pouvoir opposition ak yeneen candidat yi ñu toog discuter pour teg carte yi ni mu demee te donc euh, loolu gis pour defar élection euh, bu leer jafe na jafewul boo ko bëggee yombalal rek. waaw ah, moo tax sànq man la est-ce que du problème volonté tamit ndax dara bala nga koy def day fekk nga bëgg ko ah, am ci. <coughs> waaw de toute façon nii nii la ba léegi nii la pouvoir nii la position dégg nga yaakaar naa ni ñoom ni ñu téye ci carte yi ci moyee. Mm. moo ma jaaxal moo ma jaaxal. ndax gis am na puissance yu bëri yoo xam ni euh, démocratique du ay carte sa sa identité doy na sëkk mais fii moom da lay waru quoi. de bu ñëwee day continuer système bi fi ne woon. même même même léegi opposition yi dañu dañoo bëgg ci carte yi dañoo bëgg carte yi ñu koy defar ba mu gën a ñoom te boo leen waxee ni carte yi lu muy jariñ te foofu kon double contrôle lay doon eh, nga indi carte nga indi carte d'identité li ñu doon waxee danda photo ngi fii ci bulletin bi yow yaa ngi sa carte nga ñëw man noo xam kay yow loolu du yow. Hmm. loo indi beneen carte di ci teg. amul njëriñ. bon bon loo yooyu moo des ci système électoral bi ba léegi. d'accord mais sinon processus électoral bi noonu ko tëralee woon leeral ko ba dénouement ba proclamation résultat provisoire yi. nan ko tëralee woon noonu mooy dox ba ba léegi d'accord sànq yaa ngi euh, nettali loo xam ni euh, tey la ñu indiwaat rek histoire moo répété waat muy waxtaan dialogue euh, dugg ci gouvernement bi génn ci duggaat boo méngalee situation wu démb ak tey noonu koy expliquer parce que dafa mel ni bi ngay wax Ablaye Wade Abdou Diouf. tey Macky Sall ak Idrissa Seck la ñu la ñu gis ne <laughs> moom moo ko duppati. gis nga ñun ba nu gisee nii coow élection matu ko trouver consensus ba dépasser contradiction yi mooy jàmmu réew nan ko gisee woon en 88 moom la ñu compté di ko gis ba léegi bu élection amee man yi mu nga ñi def seen recours bu recours bi doxul nan teg jàmm nanu félicité ki gagné ki gagné na yaatu na ubbeeku waxtaan ak ñi nii def un gouvernement d'union nationale li fi jàmm ñu dem parce que réew bu amul jàmm kenn du fa mën a liggéey dégg loolu moo tax ñun ñu rafetlu euh, dès que Macky gagné le lendemain mu appelé au dialogue à l'ouverture. kon loolu dafa ni tradition la ci Sénégal. non nekkagul tra bu tradition la. kon Abdoulaye Wade def ko bi mu toogee defu ko <laughs> du woon tradition. kon lu tax Macky def ko ci yow ci sa ci sa xalaat parce que non dafa xam dafa gis loolu li mu jur et euh, jamono bi ñu toll ak problème yi Sénégal euh, euh, jànkoonte contentieux électoral bu fi amee Sénégal daanu dëgg lu dëgg. mais contentieux bi tegoon na ci suuf ndax ñee defuñu woon sax recours après présidentiel bi. defu defuñu recours mais ñi contesté. ils ne reconnaissent pas te ëllëg si biir mënoon génn ci mbedd bi woo seen woo seen i seen i ñooñ hmm. cool yi ne kur Idrissa bu jógoon ak ñoom soog bi ànd ni yi na dem ndax gañewul Macky ni duma dem coow di nu kuru hmm. fu nu jëm li ci nekk mooy nga accepter dispositif bi nga xam ne yaa ko fi teg boo defee sa recours sa recours antuwul nga nangu xam ne àddina yemul ci benn bis nga nangu euh, ki gañe xam ni gañe na mais euh, ñi mu ko seqal am na Sénégalais yu ne seen ginnaaw te bëgg noonu bokk ci liggéey liggéey réew mi nga yaatal leen woo leen am na ñuy nangu am na ñu dul nangu ku nanguwul am nga ci droit mais ku bëgg réew mi daal pour mën a liggéey da mais loolu askan wi dil la ñu koy tuddee jamono yi. mais non askan wi tuddee woo. ñenn ci askan wi ne li yéen wi dil la ko jàmm non ñun tamit ñun tamit tàllal nañu suñu micro ak suñu dictaphone yi ñenn ci sénégalais yi ñu ñu ne euh, kii lam daan bañ démb ak li mu fi wax yëpp. tey moo dem ànd ak kii mel ni du moom. ma ne Abdoulaye Wade li mu doon bañ. indi indi vaar comme vaar moo xew. <laughs> ma ne Abdoulaye Wade li mu doon bañ moo moo yées ba gis nga non gis nga politique euh, ku ko jugé noonu da nga juum politique pour defar la du pour yàq waaw xëccoo ba yàq réew kooku du loolu loon séntu ci politique xool Amérique ñu ngi xëccoo bëgg a yàq seen réew ci ndax bu neex démocratie Amérique la ñuy mooy c'est le pays mais ñu ngi xëccoo bëgg a yàq seen réew da ko jar lan moo ko jar ñun demaguñu fen bëgg nga xëccoo maa jiite doo jiite ba ba ba delloo Sénégal fa mu nekkoon ba Mauritanie yàpp ko Gambie yàpp ko Gambie dama fàtte moom dafa profité ci yëf yi eh, ni Sénégal bi jeex na <laughs> te comprendre. te coow loola. ci coow loola parce que pouvoir central Sénégal dafa euh, dooleem dafa wàññeeku dafa wàññeeku. Mauritanie dal ci kawam Gambie dal ci kawam mais alors doonu bëgg ñu dellu foofu dellu la waat situation boo xam ne Mauritanie Guinée Bissau Gambie Guinée Conakry ak jihadis yi dal si na ko fu na jëm ndax loolu ndax loolu euh, Sénégal loolu la bëgg kon ñu wax diil noonu fàtt ne politique négociation la discussion la négociation la politique du dóorante dëgg la euh, ay wuj force des fois ñu tàngal waaye duñu yàq kër gi duñu yàq kër gi bu ndar yàq kër gi borom kër gi eh, eh yomb dem fii askan bi fii bu ñu bëggee non fii bu ñu bëggee yàq kër mais kilifa diine ni jóg ne eh, eh. mais Serigne Abdou bu waxul woon li nu wax Touba teg ci mais kon waxtaan na Ablaye Wade ak Abdou Diouf du am. waaw woon bu boobaa mu ngoog Idriss Seck bu ci Touba ak Tivaouane taxawul woon wóor na mu ne du wax du du nangu discuter yi kon boog réew mi na politique yi xam ni moom mu ñu ko ñoom rek dana ko seq ak yeneen kilifa te kilifa doonu seetaan réew mi yàqu. mais tey am Ablaye Wade moomu doon euh, négocier ak Abdou Diouf ba dugg. bi Macky Sall ak Idrissa Seck ànde itam dégg nañ li mu wax. Euh, <laughs> non moom dafa ni ñoom danoo euh, danoo deal contre Karim. moom loolu rek mooy loolu rek la gis parce que xam na ni. ànd bi Karim mënoon na cee bokk. non Karim ci bokk. Karim il est sous le coup de te Macky yóbbul Sénégal yi bay def loo xam ne loi bi mayu ko ko. Karim est sous le coup la loi papam nag moom euh, ni mu gisee mooy nan def ay rapport de force ba jële fi mag yi mais moom yàlla def ne amatul kattan boobu amatul kattan boobu mais bu fekkoon mi ngi ci dëgg ndindi oh, kenn kenn du am jàmm tant que mag yi jógewu ma loolu euh, ji mën na ko pour élection 2019 yi ma ne du bokk élection du fi am mais kenn nu ko ci kilifa diine yi kilifa aada yi ak puissance étrangère ñoo wax xam ne Alpha Condé mën na ci moom dara mu woo ko kenn du seetaan Sénégal yàqu ndax bu yàqu du njëriñu kenn ku dul jihadiste yi jihadiste yi rek. waaw lan la la Alpha Condé mën ci Ablaye Wade lu keneen mënul ci moom. seen diggante la kooku moom seen diggante la. d'accord yàgg nekk opposition opposition ñoom dañu yàgg bokkoon Paris. Mm. dégg de kooku seen diggante. xamante ne xamante ne am na daal seen diggante quoique euh, Abdoulaye Wade. Mm. Alpha Condé la kii la jàppale woon da Céline. Dale la jàppale woon. d'accord waaw. Dale moo doon candidat am. mais diggante bi ak Alpha Condé moom euh, pour soxaju ci waaw. moo tax ñi bëggoon ñi nga xam ne mënuñu dara ci Abdoulaye Wade. bu ñu demee ci Alpha Condé rek moom ci raxawee day fi ñuy jeexalee mooy euh, àndu tey euh, Macky Sall ak euh, Idrissa Seck ak ñeneen ñi nga xam ne dugg nañ ci gouvernement d'ouverture bi ban njariñ la mën a amal Sénégal comparé ak àndu Abdou Diouf ba ak Ablaye Wade lan la juraloon réew mi. premièrement dal réew mi dana dal kooku mooy premier acquis bi deuxième acquis bi. Euh, li ko wuutale ak euh, euh, temps Abdou Diouf fii nekkuñu ci programme ajustement structurel Macky bi mu falo di di xaymawaat programme dafa woote woote bu yaatu pour ñu bokk évaluer phase 1 de PSE ci waxtaan woowu ci la def PSE 2 PSE 2 boobu bi mu koy def na syndic ñëpp doon bokk bokk bu ñu tëral ko kon muy programme boo xam ni ku bëgg a liggéey Sénégal war nga ci mën a sukkandiku da de euh, Covid bi mu ñëwee mu woowaat leen ñu seet nan ko ju juyante bi ñu ko juyante mu nekk euh, PS2A ajusté accéléré dégg nga de Euh, consensus am ci loolu ci biir consensus boobu la Idrissa Seck dugg li day ci si bokk pour liggéey dégg nga de bu fekkee ne consensus boobu amul woon kon bu ñëwee yeneen discussion la di dem ci ci programme nanay defe mais fekk na fi consensus boo xam ni mën na euh, euh, safar dara ci Sénégal loolu moo wutale mais li ko mooy ñoo bokk indi dal jàmm li may ñaan rek yal na ànd bi yàgg dal dal bi gën a yàgg ndax lu mu gën a dal réew mi di gën a am jot gën a tal liggéey. te te e, bu doon sama sax e, ouverture bi du yam rek ci parti politique yi société civile nan leen ci dugal. même bu dugg ci góor wax bi am na responsabilité yoo xam ne ban leen ko mën a jox ñoom si ñu gis si seen bopp ndax ñoom bokk nañu ci ñi den xayma waat programme wa Macky Sall bi PSA e 2A bi du programme APR ah kooku du ko ji programme remanié la boo xam ni ñii ni ñoo ci indi seen seen gisi seen xam-xam euh, boole takk ñu adopté ko mhm. ñoo koy adopté fële la woon euh, jamñaani ci bu yëkkati nga rakam ñëpp gis. kon programme réew mi la daal. programme réew mi. bi sa rajo la ko wax. waaw mooy sa programme rajo. <laughs> réew mi Sénégal jërëjëf euh, Ibrahima Sène amoon nañu mbégte lool dalal la ci démb ak tey doon waxtaanee code consensuel wala code Kéba Mbaye bu 92 ñu ko doon fàttaliku 20 novembre bi ñu weesu euh, en tout cas amoon nañu mbégte lool dalal la waxtaan wi tam am na solo dugg nañ ci démb dugg ci tey euh, ak lii xew tey di ànd politique yi ni nga ko waxee yàlla na jur njariñ ci Sénégal ndax loolu rek moo am solo. exactement jërëjëf vraiment kontaan naa ci li ma delloo si démb parce que lii am naa yaakaar ne bu ñu ne delloo si seen xel dañoo xam ne lii mooy jàmm Sénégal ci ci li ñu mën a liggéey Sénégal xoolal coronavirus bi dafa yee Sénégalais xam ni ne mbas may fi dugg inondation ñëw teg ci ndax inondation jiitu sax mhm. mbas mi ñëw immigration clandestine ñëw indi ñàkkum xëy mi. non xëy mi fi la nekk. Mhm. ñàkkum xëy gën a yokk ak mbas mi ndax liggéey yu bari dafa tagga tembe ak yooyu yëpp. waaw ah, moo tax ma ne mbas bi. waaw ma ne ñàkkum xëy xëy mi fi la nekk. Euh, mbas mi gën koo tar. Mhm. immigration clandestine bi ñëw gën a tar. problème Sénégal yooyu bu darul du dox bu darul kenn du ko mën a safara ku fi ñëw topp am naa solution boo amee solution da nga waroon ñëw. discussion ak Sénégal yi bi ñu di. Eh, ñu ñu seet solution. ma yow mënoo fi nekk rek yow da nga mel ni yonent yàlla Muhammad yaa am nga am nga am nga euh, téere boo xam ni moo mën a faj lépp. loolu ku ko def sa bopp doo nit kenn ëppul xel kenn fii boo bokk sottante seet euh, sottante xel sottante xalaat. Euh,